asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon nu fas yéene jàngal leen kàddu yi nga xam ne moom lañu sëñ Moustapha Gaynde Fatma di jàlleloo ci mbooloo mi te mu waajaloon ko ngir euh, guddik tey mu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sëriñ su tedd si invité yi mbokk yépp te bokk ci fédération bi ak fi ñu ci mën a bokke soxna yi ak sëriñ si ci taalibe ak fu ñu mën di jóge ànd ak ñun guddi gi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dogalub sunu boroom dajale waat nanu tey ci guddi gu màgg gi ginnaaw fukki weer ak ñaar yi jàll te fees dell ay mébét fees dell ay simbu ak itam lenn loo xam ne mottali nañ ko muy ay réalisation ci anam yu bare bare kon loolu nanu ko sant yàlla bu baax subhaanahu wa taala sëñ na ci diggante soosu fukki yeeg ñaar am na lenn ci ay mbokk yoo xam ne danoo àndoon liggéey bi yàlla sunu borom subhanahu wa jële na leen fi ñoo ñu ngi ñaan sunu boroom def àjjana di seen kër seen wuy sunu boroom dañuy fàttali ne dund gii ci àdduna day loo xam ne ab jullit lenn rekk la koy jàppe muy waajtaay ngir dund ga nga xam ne day sax ba faw te du jeex muy àllaaxira dañuy fàttul ne dund gu gàtt gi day toftalu ca googa ba mel ne benn lay doon du ñaar kon ñi nga xam ne ñoo fi desandi sëriñ bi na ñoom itam bëgg naa yëkkati ay canti xol jëmale ko ci ñoom ngir seen jéego yu am solo yu ñu def ci biir daayira bi nga xam ne moo leen gënal leneen lu manti doon ci àdduna xam na ne dund gi bari na ay yitte lool ak lu leen ci war waaye sunu mbokki taalibe membre yi jàmbaare yi fexe nañ ba wàccoo nañu ak li leen war seen diggante daayira bi bu baax moo xam fu ñu fi mën a nekke ci daayira ya ci section yi ci section ak sous section yi ak ci yeneen entité yi ci mën a nekk ngir doxal liggéey bi ci loolu nee nañ ko may rek mu yëkkati kàddu yi cant ak ngërëm jëme ko ci sëñ Abdourahmane Mbàkke Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy xalifa bi Cheikh Ahmadou Mbàkke te itam mooy président d'honneur ci liggéey bi nee na ay joxañam ay soññeem ak loxoom bi dul jóg ci daayira bi gis nañu ni mu yëkkatee daayira bi ak ni mu ko taxawoo kon ak cant mënuñu koo wax ba mu doy ci moom xanaa di ko ñaanal sunu boroom subhanahu wa mu fay ko fay gi gën a mat te itam mu yàggal ko fi lool ak mboolem ñi mu àndal sëriñ si ak soxna yi sëriñ bi ne jataayub tey ci guddi gi pose la parce suñ koy wax mooy opportunité ngir dëkkal loo xam ne aada la joo xam ne Cheikh Moustapha koo tàmmoon lool ci guddi gu mel nii fàttali ñu li nu fi tax a ñëw ci àdduna ndax ab jullit dafa dëlante ak boroomam te dëlante googu mu dëlante moo ak moom moo ko may turu jullit al muslim ndax muslim ak islaam limu mu firi mooy nangu maanaam jébbale sa bopp te nangu nit ki nag la ko may aw turam rawati nag loo xam ne daf koo jaayante war naa jéem a sàmmoonteeg moom ngir mu sàmmoonteeg loolu nag jullit bi war na ci moom mu fonk njàngale lislaam yi nga xam ne dañ koo digal mu farlu bu baax digganteem ak boroomam te maandu ci digganteem ak mbindeef fii ci des te loolu mooy waxtaan wi mu bëgg a waxtaan ak nun tey mbokki taalibe yi sëriñ bi nee na sunu boroom moo nu waxal boppam ci alquran lu tax mu bind nu ndax moo wax ne wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yaabuduun ba may bind nit ak jinne leen rekk tax mooy nu jaamu ñu jaamu ma jaamu googu itam da koo firiwaa daan ne وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء digaluñ leen dara lu may ñu jaamu yàlla sellal jaamu gi bañ cee rax leneen loolu taxoon Cheikh Moustapha dadaa fàttali fu mu toll ne yi lay daje ji tey jii mu woo nit ñi murid ñu ñëw daje Tuubaa mooy mu fàttali leen dee fàttali leen yowmal qiyaam ak yàlla laaj gi mu leen di laaj dafa waxoon ne innama jamaatukum hada lijtimaa li udakkirakum yowma aljamci alladi rayba fii kon mu waxaat ne itam ma lëkkale ko nag dajale leen ngir fàttali leen ne yowmal am na amul sikk waaye tax ma lëkkale ko ak bis bi nga xam ne ci la sëñ bi ñibbisee Tuubaa mooy li udakkirakum anna kullu nafsin dha'iqatul mawt wa aynama takunu yudrikkum al mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada ne dama leen di fàttali ne bakkan bu ti doon dana mos faatu fàttali leen nag foo mën a nekk lu mu sori sori lu mu ruqe lu mu am protection lu mu mënti doon dee dana la fa neen loolu moo tax kon nag sëñ Moussa nee na day barkeeluwaat ca njàngum njàngaleem sëñ Modou Moussa da teg woon ne ndigal yi ñooy yoon ya jëm ca àjjana ji nga xam ne yàlla daf koo dël way ragal yàlla yi ndigal yi maanaam àjjana aw yoonam mooy ndigal yàlla yi teg ca ne sawara ay yoonam mooy tere yàlla yi kon nag ku nekk na gën a góor góorlu balaa dee di ko bett na jéem a farlu tey def lu baax balaa naaru góoram wi di ko wàccee di ko daaneel ci bàmmeelam di rëq ndiggam te kenn dootu ko mën a jàng kenn dootu ko mën a mocc ndax mooy ndigal li moom naaru góor la waaye itam tere yi naaru góor la kon nag na xool ban la ci war ci ñoom ñaar ndax su waree safaan ba dana jékki-jékki dee dana bette te wala iyaadu billahi taala sëriñ bi nee na nu fàttaliku ne ndigal yi ñuy wax ak jëf yi ñuy wax ngir mu baax dafa am ay sart yoo xam ne moom la ci suñu borom teg sart yooyu munta ñakk kon nag sart yooyu moom nit ki war na koo xam war na koo xamal njaboot gi nga xam ne moo leen yilif mooy loo xam ne jaamu yàlla la wala loo xam ne jëflante la ci sa biir ay nawle ak ci biir mbindeef yàlla yi ñu sàmmoonte ci àqi sunu borom ji nga xam ne moo ko teg mu ne nag ci barab boobu wax ci suñu diggante ak suñuy nawle suñu diggante ak mbindeef yi sëñ bi dana ci occasionné wu ngir sant bu baax a baax simbu waa fondation Cheikh Ahmadou Mbacké lu jëm ci tabax benn lycée moderne fii ci Touba ngir ñi dëkk Touba war cee mën a jariñu ci seenum njàng mi ngi leen sant bu baax a baax ndax day simb boo xam ne jàpp na ne dana jàpp bu baax a baax ci tasaare xam-xam bu am njariñ al ilmu naafi te sëñ Touba su daa wax xam-xam da ca teg al ilmu day wax an naafi xam-xam du ca yem danaan xam-xam bu am njariñ te nee simb bii nag foofa lay dugg ndax da ngeen koo jaare ci rëdd ak xàlli Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé na kon nag sëñ Moustapha nee ci turu fédération bi nga xam ne moo amul sas ci jiite ko mi ngi yëkkati kàdduy cant ak ngërëm yu wóor yu mu tibbee ci xolam jëmale ko ci képp kenn ci yéen koo xam ne jàpp na ak nu man jàppee ci projet boobu waaye itam ci fii nag ci lay yëkkatee kàddu ngir gën a soññee rek ci mboolem acteur yi ak ñi nga xam ne jàpp nañ ne projet bi ñoom lay waxal ñu gën a góorgóorlu lu baax a baax ndax ñu mën a euh, jàmmarloo ak défi yi nga xamante ni moo nekk suñu kanam leer na ne défi yooyu ñuy wax wala dëkk yooyu bari na jafe na waaye nag lu mën a nekk la lu mën a antu la nee na ndonol yoonu murit ci moral wala matériel te muy lu am solo lool doomu aadama yëpp man cee jariñoo nanu jàpp ne ndénkaan la loo xam ne dañu ko teg suñu loxo kon nag war nañoo góorlu ba nga xam ne danañ ko sàmm ba teg ko ci loxo yi génération yi ñu jëm te muy loo xamante ni dañu koy laaj nee na foofu nañ ci bàyyi xel sëñ Cheikh Gaynde Fatma dafa waxoon ne ñi nga xam ne ñoo fi des te wuutu war na noo somm sàmm ndonal ñi dem te ñu bàyyi leen fi ala alxalaf an yasuuna athar as-salaf loolu nag na ko ñëpp xamandoo xam responsabilité bu rëy la euh, sang si sëñ mi nee na responsabilité bu rëy ku nekk war cee euh, bay aw laajcam ngir jàmm ak rattaxoo ci biir askan wi day lu ñuy tabax bis bu ne amul bis bu ñuy noppalu amul bis bu ñuy bër sëriñ bi nee na dal googu ci biir askan wi dafa am ay wos yu koy téye waaye bi ci ëpp doole yàlla may nañu ko muy gëm ndax gëm dëgg-dëgg moo yor mën a aar écosystème bi waxuma laa doomu aadama mi nekk ci biir te moom la yàlla def xalifa kon ngir mu ràcc ràcc mooy li ñuy wax survie survie mooy ràcc ngir doomu aadama ràcc wala askan ngir mu jëm ca kanam ngir mu gën a leqaliku ak askan mu manti doon dafay aju ci gëm-gëmam bi nga xam ne mooy firi te mooy jëmmal am xelam ak ni mu firee àdduna ak ni mu séqal àdduna te loolu sëriñ bi jàngal nañu ko kon nag gëm-gëm nag rawatina gëm ni ko lislaam indee dafa am ay règle yoo xam ne dafa am ay nattuwaay yoo xam ne moo koy jàppale te itam yooyu suñu ko seetee ba ci biir dafay atte nit ki moom rek di ko atte su nekkee ci biir askan wi ci biir famille bi wala ci biir geneen kuréel loolu nag tax na mu di ko jàngale ay gëm-gëm yoo xam ne gëm yooyu mooy tax muy def mooy tax muy ba moo koy jàngal aw taxawiin maanaam ab comportement bu am maanaa ci digganteem ak mbindeef yi lu deme ne mu wormaal mbindeef yàlla yi respect lu deme ne muy dimbalante solidarité lu deme ne muy jëllale muy tolérance yu bare bari ci ay gëm-gëm ak ay jikko yoo xam ne mooy tax li ñuy wax vivre ensemble maanaam dund dundandoo ci biir euh, xeet wi doon lu am maanaa te jàmm rekk di ca mujj l'islam nag dëgg-dëgg ju ji nga xam ne sëñ Tuubaa dafa ñëwoo ngir tajdiid ko ngir yeesal ko mooy cadre idéal maanaam mooy anam gi gën a jekk ngir ñu mën a am dund boobu ñuy wax fu ñu mën a nekk ci àdduna donte sax ñu fa nekkal du ñu julli wala du ñu taalibe suñu dën tënkoo ci lislaam jooju rek suñu borom subhanahu wa taala danañu may dund jooju ñuy wax waaye nag war nañ koy dekkal njànginum sëriñ boobu di ko jaar ci jàngale ak yare ci mbooleem plateforme yi ñu am ak mbooleem institution yi ñu am ci daara yeeg yu mel noonu sëriñ si soxna yi sëriñ bi nee na Cheikhul Khadim daa wax loo xam ne mooy tënk mbir mi Cheikhul Khadim daa wax naan jàmm ak dal fii ci àdduna ak fële fa ñu jëm ñu ngi juddoo ci ñeent waxu yiw jëfu yiw yéene yiw te sax ci yiw inna salaamata wal aafiyata fi dunya wal axirati tatawalladaani min qawli alxayri wa ficli alxayri wa niyati alxayri wa mulaasamati alxayri waxaat ne xam leen nag lépp li koy tënk aw yiw mooy jëf joo xam ne fii ci àdduna la te ba nga koy def amul njariñal àllaaxira jubluwoo ko ca nee loola jëfi neen la kon nag sëriñ bi nee nun ñépp nañ ànd liggéey ci luy jëmale sunu askan ca kanam ci nag jiital gënale ab yar waaye nag jàngal waxambaane yi ak xale yi loo xam ne dana leen jariñ ñu man cee amam xëy man cee tedd jàngal leen lan mooy liggéey ak ni mu amee maanaa ñu bañ a nekk ñuy sukkandiku ci ñeneen wala ñoo xamante ni dañuy yaafus ndax loolu su màggee ci ñoom danañ xam lan mooy sens de responsabilité danañ xam li ñuy wax alxidma mooy liggéey te yàlla tax nit ki nga xamante ni noonu ko suñu mag ñi jàngale woon sang si sëriñ mi nee na ci mujj kàddoom mi ngi sàkku tey digal tey soññee mboolem membre yi bokk ci fédération bi waaye nag di laa biire képp koo xam ne danga gis sa bopp ci ay kàddoom nga fekki sunu ci li nu namm bëgg ko mooy askan wi murit yi Sénégal gi jëm ca kanam ndax kat comportement yi ñu tudd sànq su fekkee ne nun fexe nañ ba mel noonu te kat lislaam moo nu ko digal kon su boobaa nun bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo tax ba lislaam ba mu gi di tasaaroo waaye su boobaa itam dana tax ba réew mi dana jëm ca kanam te muy sunu Sénégal gi nga xam ne moom rek lañ am ndax fii lañu gën a jamono lépp fi lañ ko amee sëriñ bi nee na mi ngi ñaanal ñëpp jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah